Euh, jërëjëf maa ngi tudd Aliou Sané di euh, membre du mouvement de défense de la démocratie m 2 donc dañu amaloon conférence bi de presse bi tey pour annoncer ñaari manifestation yi nga xamante ni M2D euh, ko mu ngi ko mbëbët incha allah déjà le 11 bi ñu jëm vendredi 11 bi ñu jëm juin 2021 ci Ndakaaru euh, place de la Nation de 15h à 19h à Ziguinchor et à Diourbel pour exiger libération wu euh, yi nga xamante ni depuis ci manifestation wu mars yi ñu jóge Macky Sall mu ngi leen téye ci kaso yi euh, de façon arbitraire alors que jëloon na engagement wu euh, libérer tous les détenus politiques bépp citoyen bi nga xamante ni jugoon nga pour manifestation pacifique yooyu te ñu jàppale ci kaso yi Euh, que mu libéré leen et on voit que plus de deux mois après respecté wul cet engagement te bu ngeen xoolee euh, ci jamono yooyu bi m 2 ak tout le peuple sénégalais soulevé woo de façon pacifique malgré répression bi nga xamante ni amoon na nguuru Macky Sall mu jëmale ko ci peuple bi ba mu am ñu ci ñàkk seen bakkan mu am ñu ci jëlee ay laago mu amoon manifestation bi nga xamante ni ñu ngi ko prévoiroon le 13 mars 2021 xalif général des Mourides sëñ taxa Mbacké mu yónnee ñu woon benn délégation pour ñaan ñu en tant que mouvement du m pour que manifestation wu le 13 boobu ñu euh, dàqal ko pour donner la chance à la médiation bi nga xamante ni euh, jëloon na initiative def ko euh, entre le peuple sénégalais et le président qui était prêt à en découdre quitte à que mu am ay sénégalais yu ñàkk seen bakkan ci combat pour la préservation de la démocratie boobu ñu nanguloon ko nag xalif bi ndax suñu kilifa la ñun ñëpp mais en même temps amoon na ay point de revendication yi nga xamante ni jëbbaloon nañ ko ko pour que Macky Sall mu mun leen mu mën a jël engagement pour respecter leen pour wone aussi moom de sa part volonté d'aller dans le sens de l'apaisement parmi point yooyu nag bi ci njëkkoon mooy libération wu tous les prisonniers ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngoon ci manifestation pacifique yi ñu jàpp leen ñu nekk ci kaso yi de façon arbitraire que ñu libéré leen Macky Sall jëloon ci engagement face au peuple sénégalais et au khalife général des Mourides mais gis nañ ni plus de deux mois après am na ñu ñu libéré ñu ci bëri mais am na huit jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi ca Ziguinchor ak ca Diourbel ñu jàpp ni nag la patience du peuple sénégalais a des limites euh, il faut que Macky Sall quand même ñu jugaat woon ko ni engagement yi nga jëloon pour que ndaw yi nga libéré leen te respecté woo ko il faut que peuple bi yóbbu la à ce que nga respecté ko à travers de grandes manifestations euh, le vendredi 11 juin prochain incha allah fii ci Ndakaaru 15 heures la ñuy lay tàmbalee ca place de la nation jëm 19 dina ñu amal manifestation aussi simultanément la ca Ziguinchor ak sa jurbeel pour que ñu mën a libérer otage yooyu bu ñu jógee ci loolu nag 23 juin 2021 mercredi 23 juin. dinañu woote encore beneen ndaje bu mag ca place de la nation euh, pour la préservation de notre démocratie pour réaffirmer encore ñun sénégalais yi citoyens sénégalais yi suñu attachement profond à la démocratie et à l'état de droit mais en même temps aussi exiger à ce que Macky Sall mu respecte ay engagement am yi nga xamante ni jëloon na ko en mars dernier est-ce que xalaatoo leen ni ci loolu dina am benn médiation ndax tout à l'heure yaa ngi wax que le xalif général des dafa da doxoon ab médiation. Hmm. Ah, bu ngeen demande ba mu amaat ab médiation rek ndax dina continuer wala. ñun jàmm rek lañ bëgg. Hmm. la seule chose qu'on exige tey mooy que ndaw yi nga xamante ni ñu ngi leen téye nombre de huit euh, quatre ca Ziguinchor ak quatre ca Diourbel que ñu libéré leen hmm. ñun loolu moo ñu tax a jóg. et que euh, on espère que président Macky Sall ak nguuram euh, jàmm ji nga xamante ni ñun moo ñu tax a jóg ñu poser acte fort u manifestation wu 13 mars dernier malgré boo xoolee jamono yooyu sax m bi muy jóg di naan dégg nañ ndigalu xalif bi manifestation wu 13 13 mars bi dañu koy daal di dakkal sénégalais yu bëri respecté nañu euh, xalif bi am nañu cofeel ci moom ak yëpp personne morale bi mu doon waaye suñu démocratie ak li doon bax seen xol taxoon na ñoom ñu jàppoon ni ala kulliyaal dañu waroon manifester le 13 mais M2D jàpp ne rek pour mu wane acte de bonne fois dañu war sur soir à cette manifestation du 13 mars ñu defoon ko jamono yooyu noonu donc ñun ci esprit boobu lañ nekk waaye dafa mel ni makki Sall nekkul ci esprit boobu ndax gis ngeen ndaw yu nekk ci kaso bi mu mel ni dafa ñëg mu mel ni. peuple sénégalais dafa am fu mu ko bëgg téye en otage te loolu duñ ko nangu moo tax nag ñu jug ñu ne dinañ amal manifestation pacifique yi de grandes manifestations incha allah